kilo ndaysaan dox ci diggante Selemele ndaysaan ak Rajaxe Selemele daw na jëli ko Rajaxe jëli na ko njool bi da koy daan da daan fi mu la yegg sori na da daan da koy daan dina ko daan dina ko daan da koy daan Rajaxe dina ko daan Rajaxe daan ndeysaan da koy daan ndeysaan rajaxe daan na sele nga ñëw ci compétition bi nga par équipe ni mu demee nga dem final individuel yëg-yëg bi lan la ak lan nga ci yëg waaw xanaa di ci kontaan rek waaw di nuyu gaa yëpp tamit ñu fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu ak yéen ñi waaw. ki nga daan demi-finale Sélé seen diggante yéen ñaar lan la. suñu diggante ñun ñaar dara dañoo bëri rek ma daan ko. waaw daan naa ko trois waaw looloo tax ma laaj la lal la parce que ñu ci bari neeneen nañ la jaxe dafa am ci ruq bu mu dugal Sélé. wala ci bëre bi moo koy déranger. bëre bi la rek ak doole bi dugal ma ko ci benn ruq. waaw ruq amu ci. jàpp bëri daan ñi bi rek. dañu gis ni booy bëreeg Sélé da mel ni ku gën a am confiance ci li ngay def te foo ko jàppee da lay sóoraale taay bi la wala bëre da koy indil bëre boo xam ne du ko arrangé. non man képp ku may bëreel damay ànd ak sama confiance. waaw képp ku may bëreel damay ànd ak sama confiance. dem nga final ma ñàkk confiance ci làmb. waaw dem nga final xam nga am xam naa ko bu baax waaw. kàlla. El Hadj Ndiaye ak ordinateur. ordinateur waaw. ndeysaan léegi yéen ñaar ngeen war a daje finaal nu muy demee. ah xanaa fu ñu ko doon jaarale rek lañ koy jaarale. Ah. waaw bi mooy seen ñaateelu daje. bii mooy suñu ñaar démb man maa fi daan. Mhm. tey te suba tamit incha allah damaa pare pour daanaat ko. Hmm. waaw kon bonne chance ñu lay jaajëf